Rebus TV télé. la chaîne de la vérité. ça, Assalamu alaikum, chers internautes de Rebus TV alaikum chers sénégalais comme nous le savons, depuis quelques jours coowalu municipal de Dakar Nous gis fi tamit ay camp yu taxaw ku bi li bari trop ku nekk de wax solution tey fii nag ki ñu wax Alioune Badara Tabane yaakaar naa ne kenn ko présenté fi ci Dakar Plateau parce que na responsable politique bu République des valeurs Mom tamit avec une partie de la jeunesse rebeçoise tok nañu waxtaan sen gis-gis ci mbiru stade Assane Diouf numu démé. dañ koy baye mu nuyo mu présenté wu te wax ñu aussi ñom fu mu toon lan la ñu tënk ko ci mbiru stade Assane Diouf. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Ma ngi leen di nuyu di leen ziar. Euh, di nuyu suñu kilifa yi nga xam ni ñoo nekk euh, nekk Dakar Plateau partout dans Dakar donc euh, comme ni ngeen ko actuellement coow est nee cours ci suñu zone scandale yi bëri na lu ci plage Anse Bernard la plage de notre enfance lu ci mel le problème au niveau du marché Sandaga ñii une jot nañ seen place ñii naan jotuñu ce qui est stade Diouf bi stade bi la ça a sauvé une majeure partie de la jeunesse de Rebus, de la jeunesse de Dakar Plateau de la jeunesse de la Médina parce que le stade bi la ni ñu ci man sa exemple laay stade ci sama le stade de la na ci li nga quand même euh, stade bi nekkul stade on aurait versé dans le banditisme on aurait versé dans la drogue ou dans l'alcoolisme donc stade bi Beaucoup de ci li nga xam nous sauvé nañu également population bi jeunesse bu bëree bëri bëri tey boo le président Lamine Jack j'habite à deux pas du stade et de la prison dañu jël suñu stade bàyyi ñu ak prison bi donc depuis génération boobu gëj nañ fi dégg ay professionnels dans ci zone bi donc tey nag ñu un problème au stade bi président de la république dès lors, le stade Assane Diouf à la à la jeunesse dakaroise mu dem ba ci biir quand même yàgg te Bobo ba léegi ñu ko ci interpellé dafa laaj volonté politique rek la am na stade yu bari yu nga xamni euh état bi tabax nako dans toutes les zones du Sénégal dans toutes les régions mais stade Assane Diouf bi dafa nek problème so waxee ñu ne c'est parce que c'est un dossier bo xamni euh état mi ci c'est assez complexe alors que état bi gère un dossier yu gëna complexe jàpp nañ ni volonté politique dong la parce que dañ ko bëgg jël diko politiser ça ñu bëggé accéder à un niveau ñëw né dinañ leen délo sen stade dinañ leen ko defaral jeunesse bi ànd ak ñoom votel leen ñu taxawé benen côté. donc tay ji dañu gis ni depuis euh, quelques jours bokk na ci ñi nga xamni ñu ñoo relayer information bobu moy lan dafa am collectif bi nga xamni ñun mën nañ wax ni ñom ñoñu doon waxal ñoo yoroon suñu baat moy le collectif René Sanchez. On les a reçus à deux reprises euh, au niveau de Point E et au niveau de, des sphères ministérielles de Diamniadio. Mais bien de recevoir def erreur déclaration on a été reçu en audience par le ministre Abdoukarim Karim Fofana. Donc je rappelle tout simplement que le ministre Abdoukarim Karim Fofana, depuis quelque temps, on essaie de le mettre en avant dans tous les projets de Dakar pour que nous puissions voilà am popularité Nous nga xamni président dafa am lu pressentir pour la mairie de la ville de Dakar donc c'est ce li lii a. am donc nous recevons ñu recevoir leen ñu ñëw communication lu wuñ ko deuxième point nous avons des ci ñom gis ko également mu ne leen ok lii mooy projet bi parce que li ñu leen proposé te ñu relayer ko en masse au niveau des réseaux sociaux et cetera mooy stade Assane Diouf dañu ne delloo nañu suñu stade mais dañu dem ba ci biir ne benn terrain d'entraînement la ñuy jox ci biir stade bi def ci benn tali jël benn partie de 3000 mètres carrés dugal ko ci mosquée omarienne dugal ko ci mosquée omarienne c'est important foofu dama ciy taxaw tuuti parce que am na ñu nga xam ni. Le dem seeti le Khalife général khalife général bi li nga wax leen wax na leen ko parce que khalife bi li leen c'est clair sa position est très claire leen soxlawul un mètre carré ci stade bi li nga la bëggul immeuble bi donc je ci remercier parce que kilifa la ku nga xam ni naw nañ ko lool ci suñu gox la ku nga xam ni jox nañ ko ndaxte bobu légui ñu ngi bokkoon ci xeex bi te ñom seen position mo doon ñu bañ fa def ay tour ñu mëna a cette jeunesse là leur stade tay ji nak dafa am ñu nga xamni ce sont des affairistes depuis le début stade bi bi mu commencé bi mu commencé indi ciow dañu def ben groupe di jema def communication di dugg naan wey bu récupérer stade bi parce que stade bi ay bandi ñoo fi nekk stade bi et cetera et cetera jëriñul gox bi ñoom parce que dañ ci amoon intérêt financier dañu gagné woon marché bu nga xam ni c'était à hauteur de 400 et quelques millions pour mën a toj grava yi parce que man maa ngi fa woon jour boobu qu'est-ce qu'ils ont fait dañu bàyyi ba màggalu Touba am ñu ñëw gaare ay bus ne xale yëpp ñëw leen ñu yóbbu leen Touba gratuitement ku dugg ñu jox la 5000. mille xale yëpp dem man taxaw Aline Aline ñan. je vais pas mâcher mes mots je dis Diopsi, Sy ci boppam moo ay bus parce que moom dafa un marché bu 400 millions ci stade bi moo tax mu def communication ba tey jii ñu ñàkk suñu stade ndaxte moo jël quelques personnes dem seeti le président Abdoulaye Wade ne leen Dakar Plateau ñu ngi ni jeunesse su Rebeuss mi ngi ni d'accord nañ pour nga jaay seen stade alors que loolu dara amu ci dara nekku ci. bi ñuy toj stade bi màggalu Touba dañu bàyyi ba ñëpp dem ñu yóbbu ñëpp ñu ñëw gaare ay gendarme autour du stade ak ay policiers biñ koy toj ak seeni bulldozer dañ ma woowee suma kër ne ma ñu ngi toj seen stade ma daw dem ci stade bi mais di xeex ak gendarme yi di xataraayu ba dugg ci biir à ma grande surprise j'ai vu que ñu ngi Daniel Tribuni, yi ci kaw ñi nga xam ne ñoo fa les gardiens le gardien qui était là avec sa famille bokkoon ci ñi nga xam quelques personnes ñoo fa newoon di ko jàppale di ko génneel bagage am ngir ñu bañ ko daaneel ci kawam dem taxaw ci diggu stade bi ça m'a fait très mal j'ai pleuré ce jour-là donc stade bi dafa doon lu nga xam daf ñu ñor dafa bokk ci ñun ñooñu defoon loolu tey ñoo bëgg dellu siwaat nekk au devant de la scène ne li nga xamante ne ni état bi proposé na leen ko à travers le ministre Abdou Karim Fofana d'accord nañ ci ba pare bëgg def communication bëgg gëmloo nit ñi ni loolu lu baax la mais loolu mooy diviser pour mieux régner parce que tey ñu bëgg jël affaire bi yamale ko fii ci gox bi alors que stade bi c'est un stade de Dakar dañu bëgg tas collectif bi tas ñi nga xam ne ñoo bokkoon combat bi bëgg gëmloo ni wa d'accord li wa rebeus dina l'en arranger alors que c'est archi faux ñun ñëpp le ministre d'ailleurs ku nga xamante ni ce qu'il kilifa bu waxé tay suba mu génn ci waxatu la yow ministre bu ndaw bi nga xamni dañ la fal rek dañ la fa tek à tout moment mën nañ la fa jëlé n'est-ce pas donc loolu lañu bëggoon mu leer ci bop ñëpp xamal leen ni ñun la jeunesse de rebus la jeunesse de Dakar Plateau d'accorduñ ci tay d'accorduñ ci ëllëg ñi nga xam ni ñoo toogoon démb di wax ni nañu jaay suñu stade nañu taxawee nële ba ñu lijjanti lu ñuy lijjanti ñu topp ci ginnaaw loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg merci. Euh, gis nañ fi depuis début euh, bi ñu jëlee stade Assane Diouf en 2004 am na collectif bi fi nekkoon boo xam ne mu ngi doon xeex pour ñu récupérer waat stade bi est-ce que jëm ngeen gisante ak ñoom waxtaan ak ñoom. alors collectif bi effectivement man sama walu bop on m'a convié plusieurs fois à des réunions ba bu mujj bi euh naa na buñu don def un point de presse euh, avec euh, l'architecte euh, Berthe donc biñu joggé ci point de presse bi man tam dama def déclaration ne leen bi ñu may woo ma ñëw du li lañ ma waxone dañ ma ni won point de presse lay don bu nga xamni dañuy wo la jeunesse de Dakar Plateau ñu ñew taxaw fekkee ko mais à ma grande surprise j'ai trouvé que ça a été fait dans une maison il y avait quelques personnes et la presse ma li leen lii wax ci lu melni stade Assane Diouf dañu wara a dañu wara wo ñëpp jeunes qui xam lan mo fi xew ku ci mën ci participer ci point de vue également donc lool la la la len donc depuis lors je n'y suis pas retourné mais ñu suis nañ nañ aussi

faruñu ci camp bële camp bi nga xamni mom lañu la faral moy la jeunesse dakaroise moy wa gox bi parce que stade bi stade bi nga xamni ñepp ko bokk la waa Médina ci lañ bokk wa rebeus ci lañ bokk wa Dakar Plateau ci lañ bokk c'est un stade de Dakar donc buñu ñu nangu ñu ñuy diviser pour mieux régner stade bi ñew leen ñu bokk combat bi ñu jakarlo ak ñi nga xamni mom moom la ñu war la jeunesse de rebeus est debout la jeunesse de Dakar Plateau est debout pour ñu mën a xeex Ben benn say bañ a ñuy instrumentaliser. ok gis nañu ni aussi euh, coow li li bari bari bari bari bari lépp ci biir rëbës la est-ce que une ban solution ngeen yaakaar ne suñ ko adapté suñ ko utilisé tey dina mën a taxaw gars yi mën a ministre bi ba li mu bëgg def ko fi def. solution bi elle est simple moy lan àndandoo don ben xeex ko mu doon ben combat ñu bañ ñu di dugg suñu biir di ñu diviser lolu moy solution bi ñu andando doon ben say xatchando dorando kon euh, monsieur Alioune Badara Tabane dañ lay remercier bu baax te tamit euh, di leen jox dig dajé euh, bientôt ndax xam naa ne combat bi mi ngi doog commencer commencé. effectivement le combat du ma wax ni mi ngi doog a parce que commencer, na bu yàgg xëy na tey dañ ko remuer waat on a remué le couteau dans la plaie donc les li nga ont été def à l'encontre de la population dakaroise nous trouverons en face d'eux Lola Bogor bëggoon mu leer di Je ko aussi Yenwa waa TV parce que gis nañ depuis le début Togulen, leen yéen a ngi jóg fu ci information bi pour mën ko relayer population bi mën xam exactement lu xew donc nous ngi leen ci vous di Assalamu encourager waaw internet de Reubeuss TV comme ni nga ko gisee rek depuis le li leen wax Reubeuss TV tëddee njaaxanaay lay def ndax mbir mi lépp suñu biir la ñun fii stade municipal de Dakar la stade bi tuddoon xandaalu de Reubeuss moomu ko waa Reubeuss moomuñu ko Médina ci la bokk Kumba Kassel la bokk plateau bi yëpp ci la bokk Dakar ñëpp ci lañ bokk liñ mën def rek mooy fu ne ñu dem fa waxtaan ak ku ne féetewuñu benn boor ñëpp la ñuy waxtaanal képp koo xam ne am nga kàddu boo ci war a sànni wala trouvé nga ni. soo posé act bi peut-être solution dina am dinañ ñëw ci yow waxtaan ak yow kon nag ñu leen di jaajëfal suñu cher internet yi dinañ jox di daje incha allah bientôt. Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen.